ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf luy naaw a neex a sànni Karim Wade Khalifa Ababacar Sall seeni kàll L'Observateur nee nañu réglé nañu ko pili yéene kay bi meerub ndakaaru ba woon ak doomi lay wadd ji li leen tëwoon mu di mën a falu dara ci réew mi ndax yi problème yu ñu amoon ak justice bi commission politique bu dialogue national bi waxtaan nañu ci démb ba am ci solution article L28 alinéa 3 bi leen xañoon seen éligibilité moom la ñu joyandi indi ci ay coppite ba tax léegi ñoom ñaar mu di Khalifa Sall Karim Wade bu leen neexee mën nañoo bokk ci élection ponk beneen bu ñu doon waxtaanee na nañu ko bàyyee ak waa conseil constitutionnel ngir ñu wax ci indépendante ngir mu organiser élection yi l'observateur ne nañu foofeet ak déggoo amu ci journal Le Témoin xëy di ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne Karim Wade ak Khalifa Sall mën nañoo bokk léegi ci élection présidentielle yu yi ak déggoo am na ci dialogue bi ngir ñu defi modification ci article l bi Le Témoin mi ngi ñuy wax ne kaaw troisième mandat bu Macky Sall bi réglé wuñu ko naka noonu yi kan mooy doon plan B moom nee na jàpp bu Birame mooy taxaw ngir taxawal waa parti Pastef tolluwaayu politique bi ci réew mi njiit réew mi tey na buum gi journal Le Quotidien moo ko bind ci xëtamu mi di Sénégal du du ci jóg ñu jugee ci journal Le Quotidien dem ci journal L'Info mi xëyee président Ousmane Sonko ak mémorandum bi mu def ba siiwal ko démb ab mémorandum la bu fanweeri page ak juróom-benn mi ko tuddee lumière di ca wax li xewoon ci réew mi ci événement yi woon wax na ci livre ba ne wàññi nañu ci réew mi fanweeri doomi aadama yu fi faatu ca manifestation yi ak ñeent ñoo xam ne seeni néew la gis ci ñëw ne dañuy dem ci cité kër góor gi ngir yeewi Ousmane Sonko ma ñu fa tëj blocus ko fa réew mi Quotidien nee nañu gaay yi na seen boobee nee nañu dañu koy def Abdou Karim Fofana mel ni ku nañu ci Vox Populi ñoo ko tal démb ba muy conférence de presse moom Abdou Karim Fofana ministre commerce porte-parole gouvernement bi moom ak naataangoom bii di Samba Ndiobène Ka fa waxee ne ñiy wax waxi manifestation ci réew mi amuñum xel ndax mu ne suta génn ci manifestation bu yàggul ay nit faatu ci réew mi du ko naqarlu seeni mbokk di leen jooy yooyu def ci sa bànneexu bopp Abdou Karim Fofana ne kuy xalaat loolee jaroo laaj xalaat xel xalaat yépp ci li ñu nekk jamono ji mu di ci tabaski gi ñëw news ci la xëy xëy dugg dëkk bi solo dalam dem ci marché bi ngir defi xayma ci xar yeeg ci ndugg yi ana fan la ñu toll Sud Quotidien nañu bu ngeen bëggee dégg dëgg moo di ñoo ngi jëm ci tabaski gu nara sàllar ñu ko tabaski dans tous ses états noonee la ko Sud Quotidien bindee ci xët mu njëkk xar yi doyul soble si ñu war a defaree am nay jaaykat yu ko am bu nuppi rënk ko denc ko te jubluwuñ ci dara lu dul bëgg soble manqué ba ñu bëgg a yokk gi ku sa morom njëgu béy nga Brésil gi Sénégal ñàdd ni aw bay démb ci seen max amical bi ñu doon football ca Portugal mi ngi ci mbooleem yéen a kaay ñu xëyandool record yéen a kaay bind ne gaynde Sénégal yi dañoo dox démb ci kaw waa Brésil ñeenti bal ci ñaar la ñoom Sadio Mané dóor ñoom Vinicius Junior stade yéen a kaay jàppe ko bésub jaloore las yéen a dolli ñu ji ci xëtamu njëkk ne gaynde Sénégal yi ñoo ngi ci seen balaxal mbaada source waa tudde ko ndam lu forte rafet luy taarix di jàpp ba faw enquête yéen a kaay nañu non seulement gaynde Sénégal yi duma nañu waa Brésil ñeenti bal ci waaye gaynde wane démb moo dalum xel yéen a kaay bi nañu démb la ñu gis am Youssouf Sabali mu matum tudd matum tabaski démb la ñu gis am Ismaïla saar Habib Diallo ak Sadio Mané yu meloon ni fitt gu mbër sànni ci terrain bi l'observateur nañu kenn du Sadio Mané ne Sénégal ñeenti bit yu mu dugal moom Sadio Mané moo dugal ñaari ba far gën a dugaat ci soir ndax dugal na démb fanweeri bitam ak juróom-ñaar ci équipe nationale bu senegal DSL ak seen marque bi di Dekakila Kenkeyri AAD ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi